sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay si bisimilah rahmaani rahim ngi sant yàlla di jublu Seydina Muhammad xam ne ñun ay doomu aadama yàlla moo ñu moom mooy suñu standard te moom la ñuy roy liggéey bi ñu ci sant yàlla bu baax bi ma yàlla bindee saa toma bàyyi ma si àdduna bi moo yow ma te doomu aadama bi xam ne bi nga xamante ne bii su nekk di nga gën sant yàlla di nga gën a yàlla liggéey bii day mbir yàlla du samay mbir dama ko teg lépp si loxo yàlla yàlla na ma yàlla jàppale si barke Seydina Muhammad bëgg naa yéesu fii te yàlla moo tax bëgg naa yàlla jàpp ma ba ma am lu lii képp ku ñëw si man dinaa la yaatal dinaa la dalal te lépp loo bëgg rek dinaa si taxaw bu neexee yàlla man day amul problème àddina ndax àddina amul solo loolu bi am rek danga ko fi bàyyi sa morom ku ma jàngal métier ndey soo mënee muñ ñu mel ni man soo muñee ndey bu neexee yàlla dañ fi des waaye boo mënul muñ doo fi mën a des de ndax fi ma jaar ba àgg fii metti na trop waaye lépp mbiru yàlla sant naa yàlla te bi nga tàmbalee gis naa xam na yàlla yokk xewal sama liggéey yokk jàmm sama liggéey yàlla gën ma jàppale liggéey bi lay wërsëg bi ma yàlla jox rek la du sama mbir mbiru yàlla la yàlla na ma yàlla teg koo xamante ni àgg nga fa yàlla naa fa àgg si barke Seydina Muhammad ba mbay bagage yi ma am nii muy matériel yëpp yàlla naa ko si bàyyi loxo ni fas yéene ma jaay dara lépp lan dama ko bëgg a jox képp ku nekk si man rek te lépp li may wax dafa dëgg si man te dëggal naa koo ko rek yàlla na yàlla def ma am ku gën si man ku ni yàlla booleel koo xamante ni tey jii dafa mel ni man mën a muñ àndax man ba lépp lu ma bëgg rek taxaw naa si man day aw ma problème mu àddina mais kon mooy sama njëriñ. kala Baye Pen. Baye ah, Pen ziar naa la. yaa yi lay gis de ñaari fan yi yow nee fa dërët de. attaque bi ngay xëccoo de bali pote bali baale. Ah. <laughs> gars si wax de. <laughs>